damay dans le même sens avant ñuy clore chapitre boobu doog a ñëw ci DPJ bi mhm. li Pape par rapport ak circulation des armes yi ñu fi tuddoon quarante quarante cinq milliards d'armement yi force mhm. occulte yeeg mhm. force spéciale commando yi également ñu ne woon ils sont surarmés où sont ces armes là est-ce que tey jii bi ñuy inculper ñooñu génne woon nañu ay armes ci ñoom déjà ak euh, nervi ñu doon gis ñu yore ay ngànnaay ah mais c'est très grave moom la Pape Sané wax sànq bu ñu demee ba ba ba ba dëkk ak ay criminel ñoo xam ne nii ñëpp gis nañ. Mm-hmm. ci télévision yi ci ci ci vidéo yi ñu yor seen arme bu am fu ñu jógee mais da ngay war kenn ku nekk war ngaa tiit demander <laughs> demander ay questions. waaw loolu nag président de la république euh, Bassirou Diomaye Faye moo war a jël ay responsabilités mm-hmm. parce que aussi bu waruñ bu waruñ bàyyi ay criminel de premier degré euh, ñuy ñuy ñuy ci réew mi. Ah. mais ki jite woon réew mi moom ma ngay liggéeyal waa France am na ñoo xam ne bind nañu même euh, pour ñu def ko mandat d'arrêt pour indiwaat ko ci réew mi est-ce que mm. Pape Mamadou Seck d'accord na ci l'ancien président de la République Macky Sall ñu mm-hmm. indiwaat ko fi jugé ko pour lii nga xam ne moo fi jot a xew ak Macky Sall dafa war a rendre compte Macky Sall dafa war a rendre compte parce que euh, réew boo ko yoree dañ la koo dénk moomoo ko dañ la ko dénk da nga am euh, responsabilité boo war a assumer jàppee seen Sénégalais bu nekk Euh, comme sa membre de de de ta famille benn bakkan bu rob rek dafa doy waar waxuma laaj nag ay plus de soixante personnes. boo leen boo leen fàttali ko Macky Sall xool euh, manifestation dafa da doon am ay nit dee sax du ñu wax nga gis benn français dee wala benn. benn benn benn européen dee mu def tweet. Mm-hmm. wala jël avion dem ba foofu. wala mu jël avion dem ba foofu. Mm. loolu mooy wane ne Macky Sall Macky Sall moom. Eh, ñun dañoo fakk dañoo fakk salo ba faloo ko rek mais il n'est pas un bon président. Mhm. Euh, waaw ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci biir bi dañ dañu war a rendre compte. d' accord ñu ñëw euh, ci beneen débat boo xamante ne ñu ngi koy alimenter sur la place publique <clears throat> moo di ne DPJ déclaration de politique générale bi nga xamante ne depuis euh, semaine bi mi ngi alimenter les débats Pape sur la toile mais un peu partout également tey jii. mais pourquoi vouloir entretenir une chose boo xamante ne ba léegi yow nit ki waxagu la ne dinaa dem wala duma dem te également bu fekkee ne dañuy sukkandiku ci texte yi waxagul ne trois mois yi daf ci war a dem ndax coppite amoon na ci euh, Pape Sané mm-hmm. mais également beneen question moo di Sénégal est-ce que jotul ñu am constitution boo xamante ne qui nous est propre parce que yu bëri yoo xamante ne tey ñu ngi koy doxal suñu nguur ak suñu état mi ngi soqeekoo ci la constitution française ñu méngale ko la constitution sénégalaise. waaw loolu tamit yaakaar naa ci assise de la justice yi nga xam ne moom la ñu def je crois que ça a été un point extrêmement important. Mm. fexe ba nga xam ne daañu am une constitution. vraiment bi nga xam ne Sénégal la yi quoi c'est pour les sénégalais et par les sénégalais mais léegi ñëw ci wax euh, ci euh, déclaration de politique générale bi man dama yàgg man ne que on veut entretenir un débat politicien te moment bi moment bi muy démb muy tey le le le moment ne s'y est je m'explique ah on bi bu ñan la c'est ce qui entretient le débat politique. waa Yewwi def nañu seen. Euh, Yewwi askan Yewwi askan euh, mi Benno Bokk Yaakaar. Benno c'est de de ay nit ñoo ko suli mais pas l'entité. maanaam entité parce que Yewwi ñoo ko njëkkee kon. débat bi. moo di njëkk a ci journal ñëpp abondé dans le même sens toppandoo ma réerandoo léegi nag dañoo xamul ndax c'était le journaliste qui parlait et qui a donné le ton aux autres politiciens wala c'est quoi c'est quoi le problème. en tout cas le, débat quel qu'il soit. c'est un débat politicien. te très très très très nocif. Mm-hmm. ci naka euh, ñii di wax ñëpp dañu d'accord ni que dañuy tënku ci constitution. Mm-hmm. constitution li mu wax leer na que premier ministre bu ñu ko falee dafa war a dem assemblée nationale. Mm-hmm. état bi yem képp foofu c'est-à-dire euh, rombul foofu dafa ne dafa war a dem devant les députés wax leen nan la fas yéenee diir bi nga xam ne mooy nekk premier ministre mener la politique bi nga xam ne moom nañ ko chargé waxuñu suba waxuñu gannaaw suba waxuñu gannaawaati suba mhm. soo demee France dañ ko tënk ba mu leer nañ parce que tamit France mooy sunu sunu sunu sunu sunu sunu exemple ñun ñu ñëw ci lii nga xam ne mooy euh, règlement intérieur bu assemblée nationale. balaa ñu koy modifier avant la suppression du poste de premier ministre en 2019 dañ ci wax lu leer ñu ne bu ñu la falee premier ministre da ngay ñëw fii ci diiru ñetti weer ñun ci ñi nga xam ne ñooy représentant euh, askan bi nga def déclaration de politique générale mais rien règlement intérieur boobu bu ñu fàtte ni que bii Macky Sall dindee la poste de premier ministre. député yi waxuma sax député yi dañu dindi souche boobu nga xam ne mooy premier ministre mooy maanaam lépp lu laal premier ministre dañ ko dindi ci règlement intérieur mhm. muy benn ñaar bi ñu falee la vingt deuxième euh, la quatorzième législature dañu toog assemblée nationale su ma tonton Doudou Wade wax xamal nit ñi ni que règlement intérieur bi nekk ci assemblée bi dañ ko falsifié c'est un faux mhm. effectivement député yu bëri abonné nañ ne que c'est un faux. léegi ci biir faux boobu même buñ bi ñuy dellu see le poste de premier ministre jéemuñu rectifier waat fexewaat delluwaat dellu si waat li nga xam ne moo concerné le premier ministre dañ ko bàyyi à l'état mooy maanaam tey bu dee constitution tënk na Ousmane Sonko mu dem assemblée nationale defi sa déclaration de politique mais tënk ko ci délai muy benn te pour que tey jii li nga xam ne moom. mooy mooy wareefam mu mun ko def assemblée nationale day fekk assemblée nationale boobu ci boppam prévoir ko la ne assemblée nationale prévoir ko mun nañu ne pour le bon vouloir ou bien pour la bonne marché de la démocratie sénégalaise Ousmane Sonko mun na dem war na dem. mais rien je dis rien bu weesoo la bu bu la constitution rien ne l'oblige tey jii à l'heure actuelle parce que bu demee tey est-ce que nekkul euh, Sall bu fekkente ne euh, profiter de vide juridique moom lañ ko doon accuser souvent que ni yenn yi loi bi daanu ko woon wax dañ daan profiter di ko utiliser nu mu ko neexee est-ce que bii aussi du ci cadre boobu lañ ko mën a dugal bu fekkente ne assemblée ba ñu toogee euh, régime bi ba mu changé ba léegi ña ngi fay doxal yeneen mhm. yoo xam ne mm, si lii nga xam ne mooy règlement intérieur faux règlement intérieur mhm. ci la euh, ci lañ koy doxalee. tout à fait est-ce que kon defuñu tànn sa bu la neex finalement par rapport ak la DPJ. oui mais euh, DPG. mais mais plutôt Assane Issa je te réponds beaucoup plus franchement xam nga les hommes politiques qu'ils soient de du pouvoir qu'ils soient de l'opposition ñoom ñëpp a yem. cest ñoom la seet mooy la leen arranger ce qui leur profite. Mm-hmm. mais dans le cas d'espèce je dis dans le cas d'espèce euh, mu dem. c'est une bonne chose pour la démocratie. mu ne daw kenn mënu ci dara c'est-à-dire peut être une entorse pour la démocratie mais kenn mënu ko reprocher dans la mesure où député yi seen bopp ñoom ñoo créé ce vide juridique là mm-hmm. donc moi je pense que tey jii lañu ñu war a def faire en sorte que nu ñuy dajaloo ñu ngi war a ubbi une nouvelle session ñu dajaloo corriger le règlement intérieur voilà kenn du mun a taxaw ne du ma ñëw. Mm-hmm. d' accord fii Issa du waxee sax ne dañu profiter ci vide juridique boobu mais yaakaar naa ne bi ñu faloo ba léegi amul session boo xamante ne am na pour corriger wala rectifier euh, certaines choses mais tey jii débat bi ni ñu ko entretenir sur la place publique donc on se dise même Pape Mamadou naan de quoi Ousmane Sonko a t peur pour dem jàkkaarloog ak euh, ah, député yi ndax ñu daaneel nguuram euh, échec la ci moom wala kii la ci moom daal. rien rien du tout rien du mhm. tout Ousmane Sonko la amul amul dara lu mu war a ragal Ousmane Sonko ndegam bi muy nekk opposition la la la. <laughs> la ragalul woon waxuma laa nag euh, bi mu demee ba jël pouvoir bi en fait il faut que il faut que député yi reconnaître reconnaître que euh, problème bi yëpp ñoom la parce que Ousmane Sonko amul li il n'est pas lié il n'est pas tenu de de de faire de faire euh, sa déclaration de politique <coughs> générale euh, durant ces durant durant ces trois trois premiers mois. Mhm. loolu ñoom ñu dañoo war a poser la question lan moo tax ñoom ba euh, ba léegi changé wuñ ko. et après ñu bëgg a euh, sànni xeer Ousmane Sonko ci ci lu mel noonu man li ma jàpp nag mooy bon c'est un débat politicien rek parce que gars yi duñu opposition boo xam ne opposition boo xam ne dañu manqué argument mm-hmm. euh, man j'aimerais bi que ñu wax euh, ci yeneen non c'est la majorité à l'Assemblée ah <laughs> une grande majorité même. waaw <laughs> non non majorité qui peut être grande en tout cas majorité mécanique moom léegi mu changé. léegi mu changé incha allah parce que xam naa d'ici le mois de septembre incha allah Bassirou Diomaye assemblée nationale bi. parce que assemblée nationale boo xam ne aussi euh, bi mu fi nekkee ba léegi musul euh, voté ay loi boo xam ne nii Sénégalais yëpp dañu naan loi bi baax na. ah man gisuma gisuma gisuma sa perti sa pertinence. il faut que ñu teg fa ay profil yoo xam ne bon lépp loo xam ne ne engage lépp lu ñu jël dañ koy jël euh, ci seen diggante ak seen borom. mais Pape Mamadou est-ce que le véritable problème du cette motion de censure bi nga xam ne yow jàpp que ni tiitu leen ko alors que euh, Benno Bokk Yaakaar 82 plus d'autres députés xëy na mënuñu leen a citer mais ku ci dem ci opposition bi am waa taxaw am nañ fay député euh, waa PDS am nañ fay député waa PUR am nañ fay mm-hmm. nekk ay position majorité activité mën na yokk comme mën na wàññeeku est-ce que du loolu mooy le véritable problème parce que assemblée mi ngi doon dox depuis ba ngeen toogee ci nguur gi ba léegi te moo suñu wax waxu règlement intérieur bi wax nañ ko soulever nañ ko mais terewul assemblée mi ngi doxee nii. Mm-hmm. non ñoom ñoom ñoom actuellement dañuy yëngal rek. dañu mm-hmm. dañuy <laughs> motion de censure bi wala dañuy yëngale parce que bëgguñu seen salaire yi arrêté. Mm-hmm. xam nga ba léegi ñu ngi noos. bi Ousmane Sonko ba léegi dañ bàyyi leen seen balaxal ma daa ñuy toog di fayeeku xam nga yor seen xaalis. moo tax ñuy ne fii di yëngal mais ñoom xam nañ ne en réalité. Euh, septembre ñu yeexal. <laughs> waaw ñoom xam nañ ne fi mu pare nañu pare nañ parce ba président wax ne ñoom fii d'ici d'ici septembre dañuy dissoudre assemblée nationale donc xam nañ ne fi mu ne nii amatuñu benn benn benn benn benn argument moo tax ñuy wax rek. Mmh. mais pour la bonne marche de la euh, démocratie sénégalaise est que dañu war a tënku ci constitution bi wala dañu war a sukkandiku ci règlement intérieur parce que constitution bi prévoir na ko règlement intérieur nee nañ prévoir ko bal lañ ci war a jël. waaw xam nga sax constitution moo nekk ci kaw lépp. constitution moo nekk ci kaw lépp. après mm-hmm. après après règlement intérieur doo ko ñëw. waaw mais tey ban euh, mooy question bi ma laaj Pape quelle mm. constitution on doit avoir. Mm-hmm. tey jii parce que problème yi yëpp ñuy dund tey jii naan constitution charte réew mi moo wax ne nii la ñu war a doxee. Mm-hmm. te en général dañ ko calqué donc ci constitution boo xamante ne du suñu bos tey jii. ñu koy doxalee depuis nos indépendances. tey jii qu'est-ce qu'il no non non xam nga ñun suñu suñu suñu askan bi suñu askan bi ñu yor nii euh, ñi ci bëri xamuñu la mooy la mooy constitution. voilà te constitution moom moo nekk suñu suñu suñu suñu charte. Mhm. bi nga xam ne ni moom. comme aux États-Unis c'est la Bible. c'est le Coran mooy suñu Bible mooy suñu alxuraan mooy suñu lépp. Mhm. bu ñu demee tey ba ne dañuy dañuy dañuy réviser réviser la constitution ñëpp a war a taxaw. ñëpp war a taxaw bu vote jotee ñu saytu bu baax ndax war nañ ko bàyyi mu jàll wala war nañ ko bàyyi mu jàll. mais malheureusement. comme li am Kenya par exemple. waaw mais malheureusement tey bu bu élection bu révision constitution amoon day wala constitution bu bees am mhm. mhm. day euh, nañu. Euh, mhm. koy alimenter quand argumente ouais. bien sûr euh, peut-être que li ñuy wax Pape ne boobu ba léegi opposition bi dafa amoo fa peut-être loolu tax ñu bëgg yeewu jaarale ko ci ñi nga xamante ne ñoo di député yi mais tey jii assemblée boo xamante ne xamatoo qui est qui et kii fait quoi parce que soo xoolee ci groupe parlementaire bu Yewwi mm. fracassé wu na en mille morceaux tey au sein de Benno tey personne ne peut jurer que ne ñëpp dañu def union sacrée ah tout à fait Yewwi moom je crois que euh, Euh, bien avant sax bi ñu annoncé les candidatures pour la présidentielle la Yewwi daanaka moom tas euh, Yewwi on peut dire que ñi dem nañ noonu la on peut même voilà sans entrer dans les détails présumer que voilà euh, y a y a y a déjà deux groupes yu leer au niveau de Yewwi ou même trois groupes mm-hmm. mais une chose sûre mooy que du côté du pouvoir également mooy Benno li d'opposition la nouvelle waaw ah, euh, la nouvelle est-ce qu'on peut jurer de quelque chose pour dire que ne tey jii am na union sacrée ci seen biir également. non justement foofu laa doon bëgg ñëw parce que tey boo xoolee en fait ce qui ce qui ce qui est en train de se passer euh, on à Amadou Ba des intentions de se libérer de créer un parti bon li leer ba leer mooy bu dee benn député wala ñaari député lañ dem ak moom. muy benn ñaar par essence ñun suñu histoire politique. Mm-hmm. Euh, d'habitude député yi. moo taxoon d'ailleurs Wade créé fi woon euh, cette fameuse euh, loi bi nga xam ne buy interdire justement député yi di transhumé. mu naan député bu transhumé da ngay perte. mais waaw da ngay perte sa mais dama peut-être que on va pas avoir des députés qui vont. carrément quitté Benno mais est-ce que du ñu am ay yi nga xam ne du ñu démissionné du groupe daal di ñëw nekk ay non alignés. Mhm. c'est dans l'ordre possible. Mhm. parce que tamit comme j'ai euh, un million de un million cinq cent mille francs de salaire par mois il euh, y a pas tout le monde qui peut cracher sur ça mhm. euh, je crois que bu dee am na ñi nga xam ne jàpp nañ ne que fii ak septembre. bu dee dañuy dissoudre assemblée ou bien au delà de septembre dañuy dissoudre assemblée mun nañu continuer di garder seen un million cinq cent mille ak li ci tegu euh, bu ñu la naree ñaan ñu voté contre Euh, la nga xam ne mën na une désolution rapide mhm. je suis sûr et certain que ils vont préférer mhm. jouer le jeu même bu dee du ñu voter pour mais ils vont s'abstenir d'accord Issa ñu ñëw donc il y a un rapport de force daal qui est en train de se dégager quoi d'accord weyteen si comme on dit euh, loo dul agsi bu ko jàppal la bés voilà Issa ñu ñëw ci troisième point bi mu ngi aju ci euh, baisse des prix yaa ngi wax naan ki nga xam te ne moo di Diomaye il a gagné son combat voilà